yaa rabbi bil mustafaal muxtaari min mudirin safi ummatihi fil badwi wal adri yaa rabbi bil mustafaal muxtaari min mudirin safi ummatihi في البر والعدر عليه صل بتسليم بلا عدد في اللال والسب واحسمنا من الضرر حدومة المصطفى ما يجوز من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nee na mi ngi nuyu sëriñ bi te di ko siyaare nee na tey yeesalaat ak njëbbalam akuk taalibeem ànd ko ak nag njabootuk sëriñ naar jenn gépp ak taalibe yépp nee di sant dam nag ci dikk gii nga xam ne dikk nga ko fi ngir nemmeeku liggéey bi nee na wóor na ko ne boo yabaloon dong ba gën tuut mu dikk fii na yaa ko yabal nee na doy na ko sëkk kon nag boo jógee sa jëmmi bopp ànd ak sa njaboot ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba rekk a tax nee na kon xolam sedd na guyyu xolub taalibe it sedd nañ guyyu noo ngi ñaan yàlla mu yàggal la fi lool te may la ak wér ba mbooleem li nga yéene ci liggéeyub sëriñ tubaab yi yéene ko ci njaboot gi ak taalibe yi ak jullit yëpp yàlla defal la ko te nu ànd ko nag ak yow ndax yow kat ku la xam xam na ne sa bëgg-bëgg bépp sëg yëngu ak sag dal mooy mooy ñëpp am aajo ju faju nee na jëlale nga sax murit yi ku la xam rek ci loolu rek lala xam kon nag ñoo ngi la koy ñaanal baax a baax a baax nee na xolam sedd na guyu nee na mi ngi feddaliwaat ak njëbbalam aku nekk ci sunu kanam di ko dox ñu fas la ci yéenee roy ndax roy la ci rek moo nu andi ci lii lépp kon noo ngi sant bu baax a baax di sant itam sa jëwriñ jii nga àndal di cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke mii ngir moo teg si woon xeer wi ba xeer wa jàlle da koo ànd ak nun saa su ne muy ñëw di ñu seet si di ñu soññi di ñu ñaanal bam nu joxee ndigal li itam yët ñu plan bi Seex Sidi El Moxtaar jox nu ko moom mii mu indi plan bi lan la waxoon lan ko waxoon na ko ñaanal na ko ci ci dara darajey Sëriñ Tuubaa yàlla defal nañu ko ci kon noo ngi koy sant bu baax Sëriñ Moussa sa jëwriñ jiitam ñëw ne fii am na fi lu ëpp waxtu sant bu baax ñaanal nu noo koy sant bu baax ñoo ngi gërëm ñëpp liggéey bi nag mbàkke liñ ciy ñaan la sëriñ tubaa waxoon Cheikh Issa ca jumaa yi njaareem ja ba mu noppee mu jébbal ko caabi yi ànd ak mag ñi sëriñ Touba da ko wax ne ko xiisa sa tabax gii misbaahu ahlu samaa yi wa najaatu ahlil ardi mooy lampum ñi ci kaw mooy lampum ñi ci kaw mooy muccug ñi ci suuf ku ci teg sa bët ci tabax gii mu neex ko ci xolam mbiram dana ci yéwee ne àdduna ak alaxira Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu liggéeyloo sëriñ Baara armeel yu yees yii muy bàqiya mu wàcc ab liggéey ci biir liggéey bi sëriñ naar jenn àggale ko keroog bi mu joxee sëriñ abdoulahat caabi yi da koo wax ne ko sëriñ naar waxuma la yéen waar njenn ñi ko doon liggéey waaye képp ku fa jaar def ca daraam rek mbiram dana ci yéwéne adduna ak alaxira waxuma la nag yéen ñi ko doon def loolee nag yaa fi sëriñ Touba te mbooleem ñi la fi jiitu woon tàmbalee ci Cheikh Mamadul Bachir Cheikh Mouhamadou Moustapha sa mag ju baax ja Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Salihu sa way juri ak sa mag yi fi jaar yëpp ñoom ñëpp làq nga seen ngërëm kon làq nga ngërëmul sëñ Tuubaa noo ngi ñaan kon lool yi nga fasal nu ko ci suñ liggéey bii te boo ko ci fasee danañ ko am noo ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax liggéey bi nag niñ ko liggéeyee. liggéey bi nag niñ ko liggéeyee. ñi ko liggéey ñëpp. ñi ko liggéey ñëpp. taalibey kër gi rek lañu. taalibey kër gi rek lañ. jëggaani woon fenn dara. jëggaani woon fenn dara. liggéeyu murit lañ ko liggéey itam nag. rek. aca bi jiite woon liggéey. maçon bi jiite woon liggéey gi. yam ko àndal. ko àndal. taalibey kër gi lañ. conférence bi ki ko def. taalibeb kër gi. ki ko pentur. taalibeb kër architecte bi defar plan bi. waaye architecte bi defar plan bi. bi ñu noppee. ba mu fi ñëwee. dana li ma leen joxoon. dana li ma leen joxoon. bàyyiwu leen ci dara. bàyyiwu leen ci dara. kon sant nañ bu baax. mbooloo mi fi teew mépp it. mënee su la nuyoole su la nuyoole ñëpp. waaye ñoom ñi ñëpp. waaye ñoom ñi ñëpp. am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci biir barab bi. bi mu seetee xaalis bi ko doon liggéey li fi des. ñetti million la. ñetti million la. ak téeméeri junni. danañ la ko jox. teg ko ci sa loxo. muy addiye ji. bu Cheikh Bassirou Mbacké dikkee nag. bis bu Cheikh Bassirou Mbacké dikkee nag. muy ubbitali nag. muy ubbitali nag. luñ ci soxlaa jëfandiku nag. luñ ci soxlaa jëfandiku nag. jëfandiku ci. sëriñ Bassirou jox na ma ndigal li nga ko jox. sëriñ Bassirou it jox na ma ndigal li nga ko jox. ngir koy saytu barab bi. ngir koy saytu barab bi. Ali Jenn mi fi nekk. Ali nekk. bañ tàmbalee ba nëgëni. bañ tàmbalee ba nëgëni. moo fi nekk yor ko. yàlla dogal na yi fi nekk yëpp. miin na ko. tey luñ fi war a def itam. saa yu woo mbooloo mi. danañ dikk def ko kon Mbàkke jërëjëf sant nañ bu baax a baax a baax ibadati kohsim min asari waslib li xayri moo saytaan fi abadin waltag fihim kulla man yastu min albasari wasrib li xayri moo saytaan fi abadin ñana di leen seeral tam ndegteem bu amatul léeg-léeg nee na sëñ Sidi xam na ko xam na ko bu jiitu bi nee na digganteem ak moom nee na sëriñ naar seere woon na ko ba tax na wasib lahu mujibaatil am lépp lu mu gis ci jëf mu jóge ci moom nee na du ko bett nee na yaakaaram réyoon ci moom waaye dafa dolli nee na xolam ci moom bii xelam it dalal na ci moom naka jekk nee xalaat ñaan nit mu ci mënoon a toll borom dooleel ko ci lu kawe kawe njor leen ak wér jiitu ak fan bu gudd gudd am na kattan ba mu gën nee na dafay delloo lépp rek xam ne si si xam nee na wala li mu moom nee na li mu ciy doon ci jataay na di leen seeral yeesal teem yeesal bu muy gën a yeesal jaayam teem ak sëriñ bi ak fas yéene fàttali ak laxasaayam parce que yéen ànd yéen kon jërëjëf nee na am na ci ab soññ bu rëy ak xel mu doon bu tee ak xel mu doon lool jëlee seen i mbir yooyu biir ak yooyu bitti seen mbir tey ak yooyu ëllëg lépp dana kawe seen njort kawe seen njort ba sawil islam fi amin yàlla xam na ne yéen ñi sell na wal takfi min kulli ma ila al khayri wa salli daban bi taslimin alay bi man law tamaw tujub bi safi wa duwari wa salli بتسليم عليه بمن لو أنت ما والتجد بسفي ودرير وذل دائما بتسليم عليه بمن لو أنت ما والتجد بسفي ودرير سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين